guddeeg bëccëg ñu jublu sayxi fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejum bindeefi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji yoonu Mbàkke sengul daagul dugal tariixul ay alaaji Fallo yaay Rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni lilaayi alaaji Fallu yaa juboog lilaayi am nga ngeen li yàlla hubbulaayi fam nga ngeen li Bàmba hamdulaayi sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëñ Moodu bu sa jeng bay baa di ab xalifa di alaaji moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi yoonu Makka ak Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makiyu dellusi yaa rahmatul mbàkki ñaan nag sëriñ bi di ko sàkku ñëw gii mu fi ñëw ren mu doon lu sax loo xam ne at mu jotati mu wutal nu bis boo xam ne dana fi ñëw ngir xam ne ne ñëw fi ak dolliku la ci nun taw féex la ci nun di la seereel santuk sa rakk di sa taalu bi muy si Ibrahima Khalil muy taxawaayam ci dëkk bi ba ñëpp safoo ko ngir lewetam ak woyofam kon mënoo mënuñoo toog ci sa kanam te séeréer luñ la ne am na ci ñun wàccuwaay woo xam ne moo ko may boppam ngir ak woyofam ak mbaaxam ba waxtu wu nekk taalib yëpp am ci moom cofeel loolu ñoo ngi la koy seereel Mbàkke bu baax a baax kon daal ñoo ngi yemale suñu kàddu foofu di jox sëriñ seex Mbàkke sëriñ Abul Baraka moom seex mu Fadal yàlla na yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te ak njabootu sëñ Tuubaa gépp di jël suñu niveau di ko teg ci loxoom di ñaan mu jotalal ñu ko ca kilifa gu tedd ga muy seex Muhammadu Muntaxal Basiir nga xam ne mooy Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf te mat ko sëkk ñu ñaanal ko mu yàgg fi te wér ba li ñu yéen a liggéeyal Sëriñ lépp mu àggale ko ci sagoom te ñu ànd kook ñoom sëriñ bi ñu ngi lay siyaare di la jox wàccuwaay ah, di la xamal nag fii nga ñëw Mbàkke sa kër la sa njaboot doo nga fi nekk njaboot gu lott lool nag gu tumuraanke gu jaaxle lool ñu nag bunt bi nekk ci diggante sa diggante ak taalibe yi dañuy ñaan nga taalibe yi Tuubaa yii nga baddil leen ci mbaaxu sëriñ bi ci barkeb Seex Muhammadul Faadal ñoom ñépp ñu am ay xéewal amuk wér amuk mucc te faatu gi tamit bu munta ñàkk yàlla nañ koy defe Tuubaa nga ñaanal loolu mbakke ndax dëkk bi doy na lool du bëgg nañ gone yi delluwaat ca njaboot gaal bëgg nañ ñu delluwaat te yóbbu sëriñ ca ñibbiwaat ca réew ma sol ay dàll yóbbu sëriñ ca lañ bëgg Mbàkke nga ñaanal lu ko mën nga ko waaw kon dañu wax ni mbokk taalibe am na am na ay mbokk taalibe yoo xam ne ñu ngi ñu ngi fii ci réew mi yàlla dogal na seeni koor demagut kon mbokk ñaanal leen rek sëriñ bi daal leen ñaanal Mbacké gis nga ni Sénégal mi teewoon 1945 2018 bii absenti na ko rob luñ la si waxul rek dañ koo fàtte luñ la si waxul dañ koy fàtte kon nag Mbacké sa njaboot gaa ngi nii njabootu Serigne Touba gi barkeb sëñ Fallou man day sëñ Mbacké mat na ndax danga maa wan ma gis a samedi danga maa wan ma gis danga maa wan ma gis tax sunu borom nee na ku gërëmul doomu aadama man yàlla dooma gërëm samedi lañ jàpp samay doom bagage yu bari bu xale bi jaax jaaxle ndax dañ koo jàpp ay yoon yoon xale bi jaaxle xam ne bu bagage yi demee day doy waar mu woo ma sama xel ni yar si yow moo woo alsan saw ni ko alsan saw mbir am na sa doom ji bagage yëpp police yi wàcc nañ ko ba yëpp seeni oto alsan saw woo la wax la turu xale bi avant may daaneel xale bi wooma ma di ma ab police jóge sa àll ba ñëw xool kayit bi xool bagage yi police bi li mu bindu noonu moo wàccee bagage yebaar ko si oto xale yi ma ni sama doom bi kooku du police sëñ Fallou ko yebal kon nag Mbàkke njaboot gaa ngi si turu si ndigalu sëñ Cheikh Mati lay si ndigalu sëñ Yàqoo bëgg yi fajal aajo yi te bëgg nag nga faj aajo yi man nga ko barke sëñ Fallou man nga ko jërëjëf Mbàkke sant nañ wér barke jërëjëf waaye li ñu gën a ñor mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew di daqaar euh, bu leen daanoo rek daqaar yi Mbàkke suppi nañu réew mi kër Sëñ Tuubaa gi kenn mënul leen ci ñoo fi mujj ñëw ñoo suppi réew mi ñoom ñëpp seen njàmbat mooy ab taalibe bi xaalis dong la bëgg Mbàkke ñun xaalis dong la ñuy wut ci ci réew mi wuti wuñ fi la leen nag tey may wax ni bala nga noo ñaanal na nga ñaanal réew mi ndax bu réew mi mu jàmm ñun ñëf ne duñ am jàmm kon suñu jàmm mi ngi ci jàmmi réew mbàkke daqaar yi nee na nga ñaanal leen ndax kat wax nañ ma ko fukki yoon te bëgguma génn ñu dem ak tey dig naa leen ko fii nag nii na leen kii ñëw dee faj ñëpp wóor si famille du kulli daal ay këyit dañu bëgg akub xaalis ak mucc loolu nag bala na koo def mbàkke may jégglu lool de ndax dama ko sëñ yi moo ma ci jox ndigal bërki démb ni ma ku kuy ñëw maa fi daan ñëw te man ab docteur laa dan ma daan yebal médecin nag mooy opéré sëñ Tuubaa ngeen gëm loolu de waaye na sax suñu borom da koy jaay bu kenn jóg bu kenn daanu waa kër suñu fàllu waaye léegi juróomi nit yi suñu fàllu jóg ñu jaayante ak suñu sëriñ seral xolom sëriñ Ceex mi bu waxee duma ci teg baat deux cent pesos leen laaj man sama wóllëre moo ma yónni ci yéen nee na lii de nan ko def ajjee suñ xalit mu siyaaree ko magam jiitoo na ko juróomi nit laajte moom ya keroog bi ko sëriñ taala ñang ne sërif mii day sama taalibe sama doom la dama bëggoon nga ñaanal ko lam ma ñaanal lépp mbàkke gis naa ko ñu ngi sant bu baax mu mel ni gan gii toog ñun njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ko waroon a teral lii lépp ñun la waroon barke Cheikh Ibrahima Fall lam sëñ Cheikh waxee sëñ Yankuba wax moom daanaka motoon na wax dëgg yàlla ñu ngi koy jégalu bu baax sëñ bi euh, toogaay bi yàgg na trop waaye nag jëwriñ moo ñu yónni woon ay kàdd euh, cant rek ñu ne woon nañ ko jottali euh, muy kàdd yoo xamante ne bii ñu ngi ko jëmale ci ñi nga xamante ne bii ñooy waa fédération bi di jiital cant gi ci suñu sëriñ sëriñ Cheikh Matalay Mbacke mi nga xamante ne bii moo fi toog jotaayu sëriñ Touba fii ci Argentine. ci taxawaayam bu rafet ak wax dëgg yàlla yitteem ci e, taalibe Serigne Touba yi e, ñuy sant itam ki nga xamante ne bii mooy jëwriñu fédération bi di sa ñànku bëggee ak mboolem ñu mu àndal liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na e, te am na solo di sant it ñi nga xamante ne bii ñoo jóge ci province yëpp am na ñu ñëw waaye am na ñoo xamante ne bii ñëwuñu waaye seen i addiya agsi na. Euh, loolu it ñu koy rafetlu bu baax di xam ne lii la rek sëriñ Touba moom euh, lépp benn la kon bu mbokk taalibe yépp ñëwee ànd ak ñun ci liggéey bi ba yëf yi réussir nii loolu dañ leen ciy sant bu baax di leen gërëm di ñaan lépp lu fi sëñ bi ñaan rek yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ci barke Cheikh Amadou Fadal Mbacké euh, ñuy jégalu bu baax nag di sant itam soxna yi seen taxawaay daayira maam jaara beeg ñëpp rek ñoom it seen taxawaay rafet na ci njiital soxna Sofi Thiam ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi di leen gërëm yéen ñëpp xam naa nag dafa guddi te sëñ bi dafa xaw a sonn kon ñu gàttal kàddu yi foofu rek di ziar ñëpp daal di leen baal ak di leen baal ak wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi fi teew ak fu nu mën a bàyyi ko daara wax na ma léegi ne fépp lañu ñu bàyyi ci réew mi sëriñ Yanqooba waxoon na ma lu mat ñeent fukki daayira yu tegu dañoo nosu ci genn buum fas yéene liggéeyal sëriñ Touba sëriñ bii di Cheikh Mamadou faadal ñëw fii fi suñu biir muy am lu nuy sàkku ci moom moom it mu am lu mu bëgg ci nun ab néew du wax ab néew du wax ab donga bu nekkee ci wetu kilifaam daa war a wel mel ni néew te ab néew du wax wax dana yàq li nu fi tax a ñëw nanu na teg déglu ko sëriñ bi defal na ko nu dellu fa nu jóge woon wante sëriñ bi lii mu ma wax ngir ma wax leen ko te nii mu ma ko waxee ni daa leen koy waxee te na mu ko waxee na la ko sëñ Fallou defee ci yéen. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem ku fi teew ak foo mën a bàyyi ko ak ña nga fa bàyyi. sëriñ Abol Baraka moom Cheikh Mamadou Fadal mu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ci seen teewaay bii ci siyaare bii ngeen di siyaare ji sëriñ bi ngir jëmmi Cheikh Mamadou Fadal yàlla na ko sunu boroom dëppale ak siyaara ba mag ñi fekk woon Seexul Xadim Sarsara xolam sedd na lool mi ngi leen di jottali nuyoob sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru moom sëriñ Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene yi mu yéene liggéeyal lislaam ak seexul xaddim ca dëkkam bu sell bee ci jaami yàlla yi mu def ci lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom te am ci ngërëmal sëriñ Touba. sëñ bi nee na mi ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxol doomam muy sëriñ seex Mbacke moom sëriñ Abdul Asis moom Cheikh Mamadou Lamine di ko sant lool ndax ba mu ñëwee ba léegi bis bu set sëriñ Cheikh sëriñ bi lay nekkal ba mu guddi mu dem fatu ji wante di jël cant gi nag ak ngërëm li nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem teg ko ci sëriñ ba mii nga xam ni Guèye moo jiite njabootu seexul xadim gi di ànd moom saytu liggéey bi ak ñi mu ko àndal ñëpp di santit ci nu nu ko mën a waxee ñu ci sëriñ Fallou Lam ak sëriñ Daabo Njaay ak ñi ñu àndal ñëpp sëñ bi gis na seen pastéef gis na seen yéene gis na seen pas-pas bi sëriñ bi ñëwee ba léegi tooguñu benn yoon dañoo bàyyi seen liggéey yépp di saytu sëriñ bi ba xolam sedd sëriñ bi di leen jottali nuyoo waa kër alaaji Mouhamadou Falilou Mbacke gépp ak njabootu Seexul Xadim gépp ñu gën caa ràññee kenn ci moom te ngeen xam ko lool ràññee ko lool muy sëriñ Ibrahima Khalil moom Seex Modou Fadal di kenn ci moom donte ne ab dong la def boppam daan fi ñëw ci ndigalul sëriñ bi musu fee ñëw mukk te sëñ bi yebalu ko mu laaj ko ndigal ba mu jox ko ko sëñ Xalil mi ngi leen nuyu yéen ñëpp waaye sëñ baa ngi leen di seeral seen digga digga moom ak diggam ak njabootu Seex Mamadu Faadal ni ñu demee sëñ Falloo leen boole yàlla na leen sëñ Fallu fay sëñ Ibrahima Xalil sonn na ci yoon wi lool dox na ci lim ci war a dox wax na ci lim ci war a wax te yaakaar naa ne ñi ñi ko umpale ci yéen bariwul kon mu ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal njaboot gépp sëriñ bi di wax ne na ngeen góorlu bu baax ci li nu fi indi te it moo nu fi bàyyi muy liggéey ak jaamu yàlla nee na sunu digga sunu boroom nanu ko bàyyi xel bu baax a baax ndax loo bàyyi xel rek du la bett ndax sunu boroom daf noo sàkk diggal nu tere na te it nee na digalu nu lenn lu nu mënta jëfe ak it terewu na lenn lu nu mënta bàyyi maam ju tedd jëkkat maam Seex ma Fall daf koo tënkoon ci ñaari kàddu muy jëfe ndigal bàyyi tere muy yoonu murit gis li lislaam sëriñ bi di leen digalit ngeen gën a góor góorlu ni ko sunu boroom waxe waxtasimoo bi abdillahi jamihan wala tafaraqu jàpp leen ci buumu sunu boroom gi te bañ a tàqali ko nanu jàpp ci liggéeyub sëriñ Touba bii te bañ a tàqali ko nanu góorlu ci wootee sëriñ Touba yi nanu góorgóorlu ci jëwriñ yi sëriñ Touba tànnal boppam ndax sëriñ Touba ku mu tànn rekk kookaa tànn sëriñ taxaa sëriñ Tuubaa ku ne xam na ne tànneef la te li mu digal ñun ñëpp dégg nañ ko keroog ba mu toogee di borom Tuubaa ñetti fan baa ñeent matul fukki fan la ca teg woo ñi nga xam ne ñoom la séqal sëñ Tuubaa ñoomu neen ci biirum néeg na leen fii laa tàmbalee ba fii te lii séentuwuma ko woon niit laa fi nar a doxe ba keroog yàlla yi def la ko soob teg ca ñaari baat yooyu murit bu ko dégg te dégg olof te amul déggee lu mu néew néew kenn waratulaa soññ ci liggéeyub sëñ tubaa keroog ba mu woo sëriñ Abo ñoom ñii ñi mu bokkal sëñ Touba ga ku ne mën naa doon sañ Touba mu ne leen nii ak nii laa doxe ba fii te nii laa fas yéenee dox gi yéen wante ku dem ma dem ku demul ma dem ñaari baat yooyu ku di jullit te lu baax rawatina taalibeeb sëñ Tuubaa waree sutu laa soññ ci yoonu murit sëriñ bi nee fii ngeen ñëw na leen leer na sëñ Tuubaa leen fi indi te moo leen fi bàyyi kon nañuy wuy si woote sëriñ Tuubaa yi sëriñ bi nee na wooteeb sëriñ Tuubaa wóoru jib taalube ndax nekkoo ci lu ko gën defoo lu gën loolu waxoo lu gën loolu nañuy wuy si wootee sëñ Tuubaa yi rawatina taalube amul genn gàllankoor guy seet guy guy sa guy sëriñ bi ci yow kon nañuy wuy si wootee sëñ Tuubaa yi nee bu ñu ko defee de moo xam ñu yëg ko moo xam yëgunu ko seexlu xadim takkal nanu gàllaaj bu bees tàq ba bis ba dellu si kon ñàkk di wuy si wootee sëñ Tuubaa yi wóoru jub murit sëñ Tuubaa xàmmeewul ki yor ak ki yorut xol bi rek la xam xol bi la sunu borom bàyyee nga ci bëgg ka bañ sunu borom dogal la nga bëgg ci sëñ Tuubaa képp kon bu ñu wootee nga sëñ Tuubaa loo nekk na ko dafa ñukk wuy si ngir sëñ Tuubaa te kii sëñ tubaa teg ci kanam te dana fi jógal yàgg nag yëf yi dox ndax sëñ Tuubaa léppam kanam la jëm amul lenn luy jëm ginnaaw sëñ Tuubaa ko tànnal boppam na mu ko tànne it dong yépp ci ànd ndax ndigalu sëñ Tuubaa kenn bañu kenn da ko bañ jëfe xel yépp ciy dem ku xel yi dem rek kooku la sëñ Tuubaa joxoñ sëñ bi nee na ngeen ànd ak kookee liggéeyal sëñ Tuubaa maamam maam seex Ibrahima Fall daan noo wax ne mbir moo xam ne boo ci jàppee mu dox boo ci jàppul mu dox nee na ngalawaay jàpp ci ca des sag ba mu mel ni yaa koy doxal te doxaloo dara sëñ tubaa doxal lépp kenn jiitewul kenn kenn du kenn sëñ tubaa képp mooy lenn ci ñun sëñ tubaa dongay lenn ci ñun kon na ngeen boole xol yi fas xol yi muy benn lu waay yéene sa bopp na ko yéene sa morom nee na bu leen noonoo sunu boroom bëggul kuy noonoo sëriñ bi nag ndab lu set wecc ci lay defu ñamam ndab lu set wecc ci lay defu ñam mooy lan mooy xol taalibe bu set wecc bu ëmbalul kenn genn ki lu waay am nanga ko ko yéene te ñaanal ko mu dolliku bu dollikoo nga dolliku benn taalibe bu sëñ Tuubaa du dend ak moroom ma njort naa man ci sama wàllu bopp di ko yéene safaan bu wurtam sëñ bi nee na di leen yéeneente jàmm bu nu ko defee te fasu ci genn buum bu nu ko defee lu nu nekk sëñ Tuubaa fekk na ci sax mu faadaka daana nu wax ne seen seen xol yi bu leen ci boole kenn nag sëñ tubaa ne sëñ tubaa rek ne sëñ tubaa dong sëñ tubaa rek moo fa nekk nee na nekk leen foofii ñëwam bii mu fi ñëw nag keroog ba muy tàggu ci Cheikh Mamadou Fadal bokk na ca la mu ca fas mooy ku ma teg bët ma teg la bët aaji ju mu la fekkeel sëñ Fall dana ko saafara wante bu sunu boroom naree nam bu sunu borom namee nare namm ci yow taalibe bi mbaa jaam bi nga xool ma ma xool da sa aajaru faju bul ma gis bu ma la gis kon na leen leer yéen ñu ñëw fii ak ñi ko fekk ci hôtel ba seen aaju yëpp sëñ Fall dana ko faa saafara kayit yii nga xam ne si jaami yàlla yi ñoo ko yore ngeen di taalibe sëñ Touba te doywu leen que lenn lu may saytu liggéeyam sëñ Touba bi di ko yóbbu fa ngeen dëkk moo xam Touba la moo xam bitti tuubaa sëriñ bi neen dana ñaan ci Seex Mamadu Faadal ñu jox leen ko te duutuñu ko jël mukk nee na liggéey bi dana jàppandi lool nee na allahu dëkk bi dana lewat doom ba na ngeen bëgg a liggéeyale sëñ Touba ngeen di ko man ndax jekku ndigal dafa baax ci taalibe sëñ Muudu Amin Fall waxoon nanu ko ne jekku ndigal la ab taalibe war a def moom la ñuy ñaan sëriñ bi jekku ndigal mooy am loo xam ne bu sëñ bi santaanee nga def ca lu kawe sa njot sëñ bi nee na yàlla na ngeen jekku ndigal ñëwum bi nangeen ci dalal seen xel jëwriñ jii di taalibe sëñ mbakke Mbàkke Madina am na lu mu ci seere léegi keroog bi sëriñ bi wàccee la mu leen wax li ma leen di ñaanal léegi ngeen koy tàmbalee gis du ma xaar ba ngeen dem moom wax na leen ko léegi doomam ak ñam àndool ñu jàpp leen nara nangu seeni bagage ñu woo ma ma wax ko sëriñ bi yaakaar naa motul waxtu ñu woote waat ne banañ leen ñoom ñëpp ña ngay naan seen café kon ñooña am na lu luñ ci gis nu nit laal yàlla nañu gis lu faaw xoloo la sëñ bi nee na waaw leen góor nee na waaw góor nag dafa gàtt lool waaye ka tëdd ci lal bay nelaw du ko dégg mukk waaye ka ne ci waaru sëñ Bamba wi te am pas-pasu liggéey nee na dana dégg waaw góor kon waaw leen góor nee na lii xolam seet na ci lool waxoon nañ ko lu bare bari ci dëkk bi waaye nee na bi mu fi agsee gis na lu faw xoloo lii sëñ bi nag dana leen gane ba alxames incha allah ku ko soxla sa soxlay biir na nga ko fekk ca hôtel ba sëñ ba dana leen wax fa hôtel ba nekk mbaa ñoom Daabo Njaay waaye na ngeen dalal seen xel ci ñëwam bii na li mu ñu ñaanal ci Cheikh Mamadou Fadal fokk dañu koy am ndax du wax mukk sëñ Fallu mu ko defalul sëñ fal Fallu yërmaane jama amoon ci donga yi amoon ko ci njabootu sëñ Tubaa gi googee la yore te moom la indaale te la sëñ Fallu daan saafara tey jii la ko gën a man te sëñ Fallou la mu ko doon looyee jaami yàlla yi taalibey sëñ Bamba yi te ba mi dem da ko fee bàyyi tey jii mi ngi ak moom kon seen jataay bi na ngeen ci rafet njort dëkk bi dana neex yëf yi dana dox dangeen jot ci këyit yi da am jàmm sëñ bi nee na ku leen tee am jàmm duutu am jàmm mukk ku leen tee liggéeyal sëñ Touba duutu am jàmm mukk ngeen des fi sëñ Touba sëñ bi nee na ngeen di takk di yóbbu te kenn bañ leen a takk yóbbu ndax dañ see amal njëriñ sëñ Touba nee na bu ñu takk naree takk di yóbbu rek nañ ko def ci ginaar yi ak jën yi ñun jëkkër jëfandikoo te ñun ñu des fi di liggéeyal sëñ Touba na ngeen dalal seen xel nag waxunu nag ngir lu leen neex danoo xam ne li ñuy wax dana leen dal te da ngeen fekkaat sëñ bi Touba naka la nga noo waxoon lépp gis ngeen ko sëñ Ibrahima Khalil bi mu fi ñëw mu di nga fi yebal dafa baaxoo tool bi boo ko bokkee ak i donga nga yebal donga yi muy dem di bay léeg-léeg njaati gi ñëw xool mbayin wa waaye mbayin bi fii sëñ Ibrahima Xalil bay tubaari kàlla sant na ci sëñ tubaa sant ci sëñ Fallu yàlla na yàgg nag nee na yàlla na ngeen yokk yàlla na ngeen mucc yàlla na ngeen am jàmm dafa am loo xam ne nag dafa ñor sëñ Muntaxa sëñ tubaa bërki démb gis ngeen ko ci télé yi démb wax naa ko la plata muy Touba ca kanam di liggéey boo xam ne dib jullit waxuma la taalube dib jullit ta bokkoo co ku ko def rek sam xel des na kon nañu bokk ci liy jëme Touba ca kanam ñàkk cee bokk wóoru ndax Touba moom ku bokk ci li koy jëmee ca kanam dana dem ca kanam ku ci bokk bokkuti dana dem ca kanam ndax sunu sëriñ Touba wax na ko ci man la bool foofu seen i Touba gi ni mu mel dong sëñ Touba yi rek ñoo ko ni melal te sëñ bi dañu ñaanal nag ñu bokk ci milliardaires yi sëñ Touba yi melal Touba noonee te lépp nag nu fekk ko ci am ci ngërëmal sëñ Touba kenn ku nekk ku ci am yéene joxe ko rek jëwriñ jaa ngi nii ñàkk cee bokk moom wóoru ku ko déggutoo ni dégg ko jëwriñ jaa ngi nii sëñ bi nag na ko ñëpp fas yéene jox loxo siyaare ko ñëw ba fii nag mu xat te joxoo ko loxo man duma ko ñaanal kenn duma ko yéene kenn na ngeen def ndànk-ndànk waaw ah waaw waaw waaw eh, ngi ñi ngi ñi ngi itam waa maam alaaji Malick si ci njiital sëriñ du Ba nga xam ne jëwriñ wax na ma sànq ne ma lépp lu ñu nekk ñoom ñoom ñoo ko ànd lépp lu ñu nekk ñoom ñoom ñoo ko ànd kon sëñ Mamadou Ba yaa ngi ñi nga àndal di liggéeyal maam El Hadj si yàlla na leen yàlla sàmm te taxawu leen sëriñ bi daal xolam sedd na lool te boo xolam seddee lu mu wax sëriñ Fallou dana ko def te ku seral xolam sëñ Fallou dana seral sa xol te seral ngeen xolam sëñ Fallou sant na lool gërëm lool. waaye li mu leen di dénk daal tënku leen ci daayira sëñ tubaab bii di ci teew di ci teg tey teel a ñëw waaw loolu la sant daal bi yépp ñu tënku ci jërë ngeen jëf sëñ bi xolom seet na lool tey itam ngeen amuk dal lool nag ci seen diggante ak ñi ngeen dëkkal dee leen amuk dal ci dëkk bi bu ngeen ko defee rek dangeen ngeen am jàmm waxtu wu nekk dee leen amuk dal ci dëkk bi ak ñi ngeen ko dëkkal ak autorités yi ñëpp da ngeen am ak ñoom ak dal am ak ñoom jàmm bu ngeen ko defee rek lu ngeen bëgg dana da ngeen ko am waaw jërë ngeen jëf jëruñ nee na daay reb Seex Moodu Faadal bi mi ngi soññee ñi nga xam ne si dañ cee bokk muy soppee sëriñ fàllu sëñ fàllu nag ñëpp a ko sopp nee na ñëpp di teew ci daay reb sëñ fàllu bi di ci jox di ci joxe la ñu ciy laaj ñu di ko yot sëriñ abol baraka mu ñu koy defal ci liggéey bu Seex Mamadu Faadal bi waaw nuyoo bi nag kenn ku nekk ñëw nuyoo yar ak i teggin benn par benn bu leen xëccoo bu leen buuxante jërë ngeen jëf ngeen tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan te kenn ku nekk nga fas la nga bëgg tàllal leen loxo yi yéen ñëpp te ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi te wér bisimilah. dee leen wax amiin ku ñuy jox dangay ngay nangu dee wax amiin. amiin amiin da ngeen ñaanal ko nag mu yàgg fi te wér. yàlla na fi yàgg mbàkk lool jërë ngeen jëf ngeen ñëw nuyoo benn par benn bañ a buuxante bañ a xëccoo.